Bonjour, euh, chers auditeurs de Réum FM, ravi de vous retrouver euh, comme tous les samedis dans l'encre et la plume. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de croiser deux étudiants de la faculté euh, de droit. On l'appelle faculté des sciences juridiques et politiques. Aujourd'hui, deux étudiants. Pourquoi deux étudiants Parce que c'est deux coalitions différentes. Et donc, euh, l'actualité oblige. Et nous accueillons Bakary Bass Saro. Il est étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coalition gagnante. Nous accueillons également Pape Abdoulaye Touré.

Voilà, donc et je salue de passage aussi tous les téléspectateurs qui nous suivent au niveau national et à l'international. Oui, euh, comme il l'a si bien dit, moi le respect est réciproque, comme on le dit. Permettez-moi de saluer tous les étudiants de la FSJP qui sont en train de nous écouter, ainsi que tous vos auditeurs qui sont en train de suivre l'émission. Euh, Avant d'entrer euh, dans le vif du sujet, nous allons avec les auditeurs découvrir nos deux invités, qui est Pape Abdoulaye Touré. Ceci pour nous faire un peu l'économie d'un portrait. Bon, parler de moi, ça va être un peu compliqué, mais bon, nous allons essayer un peu. je m'appelle Pape Abdoulaye Touré, je étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Donc, euh, à part ça, bon, je suis mes cur mon cursus scolaire et universitaire, euh, comme on l'appelle, activiste Voilà, donc euh, je souvent dans les activités des associations, que ce soit des associations ou des mouvements. Mais la faculté des sciences juridiques et politiques. Mm -hmm. Et vous êtes dans cette euh, coalition Article des listes effectives mm -hmm. de, de, la faculté. et ma liste d'origine est la liste éthique, qui est par ailleurs l'une des listes euh, majeures de notre coalition. D'accord. Et nous avons euh, également avec nous Bakary Bassaro, il est lui de, euh, de notre coalition. Bakary, pour permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître, qui est Euh, Bakary Bassarro. Bon, merci. Euh, je peux dire que Bakary Bassarro est une personne simple, citoyen. Quand je dis citoyen, bon, je veux faire comprendre aux gens qu'une personne, un citoyen qui s'active pour le bien-être des populations. Et cela nous a amené aussi euh, de montrer cette représentativité au sein de l'université. Donc c'est ça qui nous a amené aujourd'hui de participer encore une fois sur le syndicalisme universitaire. Donc, en plus de cela, je suis étudiant. Depuis ma, venue, ma première année à l'université, voilà, on bouge sur le syndicalisme pour essayer de contribuer sur le bien-être des étudiants. Et vous êtes nous sommes euh, de la coalition, la coalition gagnante Si vous partez à l'université, je ne parle, je parle, même pas de la faculté, si vous, parlez, euh, vous partez à l'université et que vous, vous vous sur la coalition gagnante, ils vont vous dire ils sont les meilleurs euh, syndicalistes universitaires. Les meilleurs syndicalistes universitaires, c'est parce que c'est l'histoire si on intéresse l'histoire, c'est l'histoire qui nous donne ce faveur-là, à travers les acquis euh, étudiantins que nous avons, euh, que, euh, que, que nous avons décrochés. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coalition euh, la coalition gagnante est composée par euh, les plus les les les plus les plus pignas syndicalistes de l'université. Et combien de listes euh, la coalition gagnante est composée plus de sept listes. Voilà, de listes. Donc, moins de listes que de listes. waaw euh, bi comme vous savez dans la faculté chaque chaque étudiant peut se réveiller et dire créer une liste donc nous ne sommes pas dans ces jeux d'enfantillage là Donc nous avons jugé opportun de nous concentrer et de considérer les listes qui sont là pour aller en coalition avec eux. Mm -hmm. C'est ça. Euh, voilà, merci en tout cas. Euh, vous avez un aperçu de, euh, de mes invités un qui se sont euh, présentés brièvement. Merci à vous encore une fois d'être là dans l'encre et la plume. Et nous allons démarrer par ce qui s'est passé il y a quelques jours à l'université Charente Diop euh, de Dakar, à la faculté de droit euh, spécialement. Euh, donc à la suite d'élections euh, d'amicales, on a entendu des incidents. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pour recueillir un peu votre version de la coalition gagnante Bon, comme euh, vous avez vu, euh, presque l'opinion nationale a été témoin de ces incidents-là. En premier lieu, je tiens à condamner toutes sortes de violences au sein de l'université, parce qu'il faut le dire, l'université est un temple du savoir. Mm-hmm. Dans l'université, il faut faire valoir euh, l'argument, euh, la force de l'argument, par la force, euh, pas l'argument de la force. Donc ça, il est important. Nous, la coalition gagnante, qui connaît les, les listes qui la, euh, qui la composent, qui est la Renaissance, euh, qui est qui la vitrine de cette coalition-là, nous connaissent. Dans, nous luttons chaque jour dans la pacification de l'espace universitaire. C'est pour cela que depuis quatre ans, depuis quatre quatre ans de suite nous nous avec les autorités universitaires afin de éradiquer la violence au sein au sein de l'université donc le jour des élections à notre grande surprise nous avons vu de, euh, de 8 euh, heures avec euh, de la plateforme campusienne et on votait et bien bien vrai qu'il faut signaler que nous ne sommes pas des Parce qu'au moment, où, au moment des élections, nous avons constaté des anomalies. Pour vous dire que nous ne sommes pas des novices. Pendant quatre ans, nous, sommes, nous, euh, nous avons euh, nous avons brigué plus de quatre mandats et nous connaissons comment la plateforme doit, doit se dérouler normalement. Mm-hmm. Et après ces constats-là, nous avons automatiquement écrit un courrier parce que pour avoir des preuves tangibles que nous, nous, pouvons encore faire valoir envers l'autorité. Nous avons adressé un courrier au CSA pour lui dire allez voir la plateforme, la plateforme déconne. Allez voir la plateforme, la plateforme déconne. Et pendant tout ce temps-là, nous avons alerté l'autorité. C'est après ça que, à la fin des, euh, euh, de l'élection, vers 18h, que nous avons constaté que nos voix n'ont pas été prises en compte par la plateforme campésienne. Je ne sais pas si la, euh, la coalition, euh, la, la, la, coalition COCC ont pu pénétrer euh, la, euh, la plateforme euh, pour pour, pour, pour, pour, frauder ou pas. Mais ce que je peux, je peux, je peux, je peux, je peux constater, c'est que la plateforme a été touchée. Et qui a intérêt à toucher à la, la plateforme pour bouleverser, pour, pour bouleverser les tendances Comment Voilà. Donc, voilà. Donc voilà. Donc euh, je vais revenir juste préciser que euh, le président sortant fait partie de votre coalition, justement. Et vous, euh, Papa Abdoulaye Touré, pour avoir un peu votre version, euh, qu'est-ce qui s'est passé Avant tout, permettez-moi de revenir sur quelques aspects qu'il vient d'énumérer au commencement. Donc en disant que n'importe que, c'est-à-dire les rois de ces genres de pratique effectivement, ce sont les membres de la liste Renaissance. Parce que tout à l'heure, vous l'avez interrogé sur la composition de cette euh, grande coalition gagnante, si je peux le dire comme ça. Donc, ça dépasse sept listes dont il vient de citer. Donc, c'est 21 listes. Si vous avez accès à la plateforme le jour des élections, vous verrez qu'ils euh, ont mis 21 listes dont on ne connaît même pas les auteurs. Donc ça, ça date depuis longtemps. C'est-à-dire, si on parle des élections, sont des actes syndicaux du moins qu'ils mettent en place pour euh, moins, euh, je pas pour finalité, mais aussi au de ces listes, ils ont même créé une autre coalition fictive. Donc au lieu de deux coalitions, parce que là nous sommes deux, ils représentent la coalition gagnante, moi je représente la coalition article 118, 119 du COCC. Ils ont créé une autre, une autre coalition écran dénommée article 118, article 118 Lux mais Alex. Donc c'était juste pour induire les étudiants en erreur. Au lieu que l'étudiant vote pour la coalition article 118 du COCC, donc au niveau de la plateforme article 118, s'il ne, s'il n'est pas vigilant, il va voter pour pour cette coalition. C'est pour les induire en erreur. Ça, je pense que il, faut important, important de le, de le signaler. Donc l'autre chose, euh, peut-être il a apprécié les faits qui se Donc, euh, je pense que, honnêtement, si nous condamnons les actes euh, de, de, vandalisme et de violence qui se sont récemment passés, donc je pense que la première des choses qu'il faut euh, condamner, c'est-à-dire les la Donc, il faut il faut être pour le dire, parce que ce n'était pas, pas les membres de la coalition article 118 les restaurants. saccager le pavillon A, c'est-à-dire le hall du pavillon A, les chaises récemment installées là-bas pour les étudiants ont été tous saccagées, les, les, les, les lampes, entre autres, ont été tous saccagés. Là, je vais montrer aussi également des images, si vous me le permettez, ou des vidéos. Vous avez vous-même vu les vidéos sur les réseaux sociaux, euh, que c'était voilà, que c'était des gens qui portait la couleur orange et que au niveau de la faculté des sciences juridiques et politiques, les gens qui portent les, les couleurs, la la couleur détermine, détermine l'appartenance de votre liste, pas d'une coalition mais de votre liste. Nous, la liste éthique, notre couleur c'est bleu. Vu que nous sommes les leaders de notre coalition, euh, la coalition article 118 et 119, donc la coalition nous couleur. Raison pour laquelle la c'est bleu. Je voulais même porter notre t-shirt en venant ici. Donc, euh, mais eux, par contre, la coalition de leur, la couleur de leur coalition, c'est orange. Parce que Renaissance est, la seule liste légitime là-bas qui, siège au niveau de cette coalition. Ça, il faut l'accepter. Il faut l'admettre. Donc, mais l'appréciation, c'est vraiment désolant. Et ça va euh, dans le but de ternir encore une fois l'image de l'étudiant. Parce que ça n'honore pas l'étudiant, c'est c'est un acte que nous condamnons fermement et pourtant on pouvait faire comme Mercredi, on, a fait euh, à dire une descente allant au niveau de notre faculté. On a la masse pour faire pour saccager, pour détruire des biens publics appartenant à tous les étudiants mais on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas participer à, des pratiques euh, qui qui qui qui va à l'endroit de ternir l'image de l'étudiant au niveau national et au niveau international. Prenez votre micro et vous sortez. Allez voir l'appréciation que ces citoyens sénégalais ont vis-à-vis de, de, de l'étudiant. Et sur les problèmes techniques indexés par euh, vous en dites quoi Qu'est-ce qui s'est passé euh, durant le vote donc euh, pour intervenir par rapport à ça, je pense que ni lui, ni moi, nous ne sommes pas des techniciens pour savoir exactement ce qui s'est passé au niveau de la plateforme. Mais on peut constater. On peut et on va faire ensemble le constat. Donc il va donner son opinion, moi Tout à fait, tout à fait. C'est un grand que je respecte beaucoup, mais là, je suis euh, dans une posture de, de parler au nom d'une coalition. Donc, au nom, de la vérité. aussi également. Donc, le lundi, c'était le jour des, euh, du scrutin. Comme d'habitude, on s'est mobilisé, on a loué des cartes, on a loué des cyber au préalable pour euh, mettre euh, nos, membres dans des meilleures conditions pour qu'ils puissent anticiper le vote des, élèves, des, des étudiants. Parce qu'en principe, c'était les, les, les étudiants devraient entrer dans le lien et voter librement et secrètement. Et Dans, la dans la plateforme d'après leurs explications ils se sont dit que s'ils votent il y a c'est-à-dire l'écran affiche tout blanc. Hmm. Donc nous on ne peut pas avancer sur cette euh, sur thèse parce que effectivement on ne on sait absolument rien de cela. On n'avait pas absolument pas de problème à voter et que la question qui mérite d'être posée, qui mérite d'être posée est de savoir comment trois coalitions, article 118, article euh, au moins 20 voix. La coalition article 118 Luxemé Alex a enregistré 20 voix. Donc euh, nous, notre on a pu Donc l'autre chose que je encore une fois éclairer, il ne faut pas conduire les étudiants ou bien induire les étudiants en erreur il ne faut pas croire, faire croire les étudiants ce qui n'existe pas. leur faire croire que nous voulons frauder les élections c'est pour ça qu'on a réduit leur compteur à zéro mais nous ne sommes pas aussi bêtes que ça. qui organise ces élections Bakary qui organise. merci, merci de m'avoir donné la parole encore une fois permettez-moi d'apporter quelques corrections à mon frère euh, Il a dit tantôt que nous avons créé des listes fictives. Vous, vous connaissez l'administration qui est rigoureuse dans sa démarche. Comment on peut tromper une administration en créant une liste fictive Encore une fois, je lui, je, je lui rappelle que le syndicalisme, ce n'est pas, c'est pas, c'est, pas, c'est pas, de la tricerie, ce pas des paroles en l'air. Ça, c'est impossible de le faire. comment nous pouvons euh, euh, l'administration qui détient toutes les bases de données, toutes les coordonnées des étudiants, qui identifie tout le monde, comment, peut, que, comment la coalition gagnante peut en créant des coalitions, euh, euh, des listes fictives ou bien euh, une coalition fictive, comme il l'a dit, Lix Non, je pense que non. Cette, cette, cette, cette, coalition existe, cette coalition à un coordinateur, cette coalition, cette coalition elle est identifiée au sein de la faculté. elle est représentative. Donc, comment nous pouvons, nous, la coalition gagnante, euh, euh, fait, euh, euh, nous, la coalition euh, gagnante, trompait l'administration de la faculté de droit. Je dis que ça, c'est impossible. Voilà, donc eux, ils, ils, se versent de temps en temps dans les allocations. Vous-même, vous savez, lorsqu'il y a manifestation, on ne, mani on, on, on ne, contrôle pas la foule. On ne contrôle pas la foule. Et vous, chacun de nous, euh, euh, au, niveau, au niveau de l'université euh, ou au, niveau du campus social, les enjeux sont énormes. au moment où il y a manifestation, chacun peut se lever, porter notre t-shirt et, faire ce que bon lui semble. Donc nous, la coalition gagnante, moi, ce que je dis, ce que je sais, je vais, lui, on se connaît très bien, parce qu'il sait que je vais jamais me verser dans des, dans des Donc, donc moi, ce que je maîtrise, c'est les personnes dont je vois à ma disposition. Toutes ces personnes dont je vois à ma disposition, nous ont manifesté. Simplement, donnez-nous notre voix, ma Et ça, c'est un droit absolu. Mm. Comment, moi, comment la coalition gagnante au MES pour investir plus de 55 délégués et à la fin des élections, aucun de ces délégués euh, euh, la voix de, euh, de ces délégués-là n'a pas, pas, été pris en compte. Mm-hmm. Donc, on a le droit de, de, de, et de manifester vivement et de manière pacifique. Je dis bien de manière pacifique. Moi, les actes de vandalisme, c'est après que j'ai vu, comme vous, comme, comme vous de l'extérieur sur les vidéos et autres, des personnes portaient euh, de, euh, euh, les t-shirts euh, de couleur orange sur les restaurants et autres. Et moi-même que vous parle, jusqu'à présent, je suis incapable d'identifier ces personnes-là. Voilà. Et qui, qui organise justement ces élections d'amicales L'élection, l'élection de, de l'amicale est organisée par, par, par l'administration de la faculté de la, des sciences juridiques et politiques. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, l'administration crée la plateforme C'est-à-dire, c'est en partenariat avec le Campusen. D'accord. le ministre de l'enseignement supérieur. Okay. Voilà, c'est c'est c'est l'administration et c'est le CSA, le chef de service administratif qui conduit euh, tout ce processus là qui mène vers les élections et le recteur assure la supervision des élections. Voilà, c'est Et la plateforme est créée à partir de Campusen oui. comme la plateforme d'inscription et aucun étudiant n'est en mesure de manier cette plateforme. C'est juste vous vous inscrivez. Bah, le jour je peux pas dire qu'un étudiant n'est, n'est, n'est, n'est capable de, de, manier la plateforme, parce que moi, ce qui m'étonne euh, dans la coalition COCC, eux, ils ont pu détenir tout, tous les documents, tous les coordonnées des personnes qui se sont inscrites si, euh, dans la faculté depuis 2011. Moi, je vous dis, et je vous dis, ils ont même appelé des commissaires, des agents, des agents de l'État qui ne sont plus à la faculté et ils vont, ils, euh, euh ils, ils, ils font, ils, leur font, ils leur font voter alors qu'ils ne sont même pas inscrits. Voilà. Un, un ami. comme, vous le, le, comme on a dit toutes ces preuves là en narcissement. Comme, comme, comme, comme, disent les Wolofs, Mais dans ce et, cas, dans ce cas, excusez-moi. La question qui se pose, la question qui se pose. la question qui se pose, nous, c'est comment, comment la coalition COCC a pu détenir cette base de données Soit ils ont un complice au sein de l'administration, soit ils ont piraté le système de l'administration. Et ça devient plus grave. Ça devient plus parce que ça dépasse même les élections. Cela montre encore une fois, euh, en temps d'examen, si l'élève n'arrive pas, à valider, il peut pirater le système administratif, euh, de l'administration et faire augmenter les notes. Et, et pour grave, hein?

bon la tendance c'est que à après les scrutins c'est-à-dire lors qui ont de huit heures à dix-huit heures c'est ce que en fait en fait c'est ce que c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui ils essaient de juste de défendre l'indéfendable comme quoi l'indéfendable c'est que nous on ne peut pas accepter que la en fait ils ne sont pas ils n'ont pas cette réticence là c'est-à-dire de voir que leur, leur vote ne marche pas, ça ne fonctionne pas, et que la liste Renaissance reste comme ça, sans rien faire. non, ça, ne, va pas de leur, ça ne va pas de leurs attitudes. Écrire des correspondances, patati patata. Donc selon si, vous, Non, ils allaient, ils, s'ils, allaient saboter les élections, ils vont aller voir l'administration coûte que coûte pour qu'on suspende les élections. Ça, c'est la première des choses. la Renaissance n'a pas cette c'est-à-dire cette, cette réticence-là. Mais ils ont agi elle dans, la diplomatie, comme il a dit. On se connaît, ah. on est tous à la faculté, on est tous à l'université, mais on sait que la Renaissance n'a pas cette réticence-là voir que leur voix ne fonctionne pas et qu'ils restent les bras croisés tout en disant qu'on a saisi le, le CSA et on attend. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, ce, ne va pas de leur, de euh, C'est après 10 heures de temps de vote après 10 heures de temps, de 8 heures à 18 heures, presque 11 heures de temps, de 8 heures à 18 heures, on, est passé au vote, il n'y avait rien et que nous, on n'a plus rien entendre. On était ensemble au niveau de la faculté, on ne les pas entendus euh, se plaindre de dire que voilà, y a nos voix qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on se connaît C'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas détecter un problème de, de 8h à 18h et attendre jusqu'à la proclamation des résultats final et qu'on nous donne vainqueur avec 99% et que vous venez pour dire ça, ça, non, tout à l'heure je vous ai écouté, j'étais courtois. Non, Ça, et que la question, il ne faut pas nous le poser, il ne nous le absolument rien de la plateforme, de Il faut aller le poser aux autorités compétentes. Ça, c'est la première des Mais l'autre chose qui peut justifier les, les C'est-à-dire avant qu'on. 0%. Les, ils ont 0%, 0 voix. L'autre donc, chose, je, suis en train de donner la justification de ces 0%-là. Tu sais ce, que, ce, ce, qui peut justifier de ces 0% Avant, avant, avant, qu'on aille euh, aux élections, l'administration. Non, non, avant que vous, non, s'il vous plaît, écoutez-moi. on s'écoute. On Donc, euh, ce que tout à l'heure, je l'ai écouté donc il faut être j'étais courtois donc merci beaucoup avant avant d'aller avant d'aller aux élections l'administration avait convoqué tous les coordonnateurs ils ont ils ont signé des des des des, des conventions ils ont ratifié des chartes d'engagement et dans ces chartes là en disant que toute tentative de fraude est sanctionnée par la réinitialisation automatique de l'ensemble des suffrages obtenus de l'ensemble des suffrages obtenus. Donc, c'est-à-dire ces la coalition gagnante, cest à le président sortant, euh, à, la fin des, des, des, des votes, il a constaté que nous parce que effectivement, les 6382 voix que nous avons, on ne l'a pas piraté. Euh, a, a, cautionné ça, à Non, mais quel moyen On les a entendus dire qu'on a cherché des agents de FBI. Mais nous, on n'a même pas. Ils ont plus d'argent que nous. Nous, on cotise. Entre les listes, on cotise pour. pour, pour, pour, pour, pour, pour, Non, je termine. Je, termine. Je, je, termine. je termine. je, je termine je termine donc ces pour cent là peuvent être justifiés par par, par par par ça donc tout à l'heure il a dit il a parlé aussi également sur des listes là je vous montre vous et vous pouvez confirmer pour que vos auditeurs vous me non je vous le montre directement pour que vous confirmez comme ça merci beaucoup donc si vous me le permettez ça c'est la coalition gagnante il y a 21 listes dedans il ne peut pas me dire ces listes-là, voici leurs coordonnateurs. Et s'il sort ces coordonnateurs, vous verrez absolument que ces coordonnateurs sont membres de la liste Renaissance. L'administration peut, peut, peut, identifier ou bien peut, valider une liste, mais l'administration ne peut pas dire que cet étudiant qui est dans cette coalition ne figure pas dans l'autre coalition. Comment l'administration peut identifier un gars qui vient pour déposer une liste, peut l'identifier membre d'une autre Nous, on connaît le coordonnateur. Nous sommes tous des étudiants et on se connaît. On connaît le coordonnateur de la coalition article 118 Lex Alex. C'est un membre de la liste Renaissance et on le connaît. Bakary, euh, euh, il a dit. Euh, comment est-ce possible l'activisme et le syndicalisme. Nous, on a 0%. je vous ai dit, la coalition gagnante investit 55 délégués. Et si ces 55 délégués pour la coalition gagnante, ça ne peut pas faire 0%. Vous aussi. Donc il dit qu'avant d'aller un vote, euh, euh, il a, euh, euh, euh les, gens, euh, les agents du Campsen ont dit que tout, toute tentative de fraude. il a une, charte, a une toute à, la, à une Euh, du système qui va vous donner 0%. Et en connaissant ça, nous, euh, des syndicalistes, en connaissant on peut pas l'appliquer en votant, en votant, plus, en votant euh, de, de, de, pour la coalition COCC, pour que leur vote soit annulé. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Ils ne se même pas compte. C'est irrationnel de, tenir de tels propos. C'est irrationnel de, dire. dire que vous aviez la possibilité de, de saboter. Si c'était le cas, alors, peut saboter. Moi, moi qui suis de la liste, par exemple, de l'autre liste X, je peux, pour saboter l'autre liste Y, vouloir voter pour cette liste euh. en faisant quelque chose. J'ai cette possibilité. Elisabeth, comme vous avez vu, nous, nous ne sommes pas des novices dans les élections. Peut-être lui, c'est sa première participation dans les élections, c'est la première participation qu'il soit devant à travers des élections euh, facultaires. Mm. Mais nous, toute la plate nous maîtrisons la plateforme Campisen et dès le début dès le début des votes nous avons essayé en votant pour notre coalition et qui euh, lorsqu'on lorsqu'on vote euh, le, le Campisen affiché votre vote est pris en contre et j'ai demandé euh, on a demandé à d'autres amis de voter pour la coalition COCC euh, lorsque lorsqu'on votait pour la coalition COCC il met euh, le, le Campisen la plateforme mettait votre suffrage euh, votre, votre est exprimé est-ce que euh, est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que vous euh, voilà votre y a, une différence automatiquement automatiquement automatiquement nous avons écrit un courrier adressé au CSA mais s'il dit que euh, la Renaissance ah, lui il doit nous respecter non il doit nous respecter parce que ce qu'il dit là c'est abusé ce qu'il dit là c'est abusé alors quand quand il dit que la Renaissance ne connaît pas la diplomatie la Renaissance ne connaît pas euh, les écrits ça c'est abusé ça c'est bien sûr bien sûr nous avons nous avons nous avons parlé avec le CSA et automatiquement le CSA lui-même et automatiquement le CSA lui-même il a dit que il ne maîtrise pas le domaine technique du Camp Pécène donc il va appeler euh, euh, euh, les gens euh, les agents du Camp et il les a voilà et il leur alors qu'il non c'est pas le CSA qui contrôle l'élection c'est-à-dire le, le CSA lui il observe c'est-à-dire lui il il peut observer le déroulement des élections mais c'est Campusène qui contrôle la, la plateforme euh, à travers leur administrateur. Donc, c'est ça, il est important de le dire. S'il y a tentative de fraude, ça ne vient pas de la coalition gagnante, mais ça, ça vient de la, euh, de la coalition COCC. Il faut leur demander comment ils ont eu la base de données de la faculté. C'est ça, c'est ça qui est important. Parce que c'est une question vous avez, euh, euh, Depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai oublié d'y revenir. Euh, mais ce n'est pas parce que j'ai volontairement j'ai pris une décision volontaire d'esquiver de, cette question. Et je pense qu'il est parce qu'ils ont ils sont en train de, de, développer cette, idée. Cette idée infondée. Non, mais cette, cette idée est infondée. Je le dis bien. Nous sommes tous des juristes. La charge de la preuve incombe aux demandeurs. Ils n'ont Vous preuve de vos allégations Nous avons, les personnes qu'ils ont, euh, euh, qu'ils ont appelées. on peut leur, les, les rappeler, eux-mêmes, ils ont dit que des membres de la coalition COCC, des gens les ont appelés pour dire que ils représentent les, euh, la coalition COCC. Donc, ce sont des commissaires, ce sont des commissaires, des, des agents de l'État qui sont sortis de la fac depuis 2015. Et qui étaient non il ne sont leur numéro n'est même pas affilié leur numéro n'est même pas leur numéro n'est même ne sont même pas affiliés à, à des listes euh, à des listes quelconques donc le paradoxe le paradoxe pour nous où ils ont pris euh, où ils pris les bases de données de la faculté de droit ça c'est un moi j'y reviens et j'insiste c'est c'est c'est c'est scandaleux je pense que je pense que il ne faut pas de tromper les euh, tromper c'est clair ce qui s'est passé, c'est-à-dire, on a pu appeler des commissaires, mais c'est normal. Parce que ces commissaires-là, avant d'être des commissaires, mais ils étaient des étudiants de la faculté. Vous croyez qu'au lendemain des élections, on prend toutes nos bases de données et les jeter à la poubelle Ah mais non, moi, Papa Abdoulaye Touré, à titre j'avais eu une base, j'ai reçu une base de données datant c'est-à-dire des étudiants. Est-ce que en Comment un étudiant qui n'est pas dans la plateforme peut voter il, a dit des étudiants de 2007. Euh, il dit, il dit des étudiants de des bases de données de 2007. Vous me Vous ne pouvez pas me... Quel était l'objectif Non, non, attendez. Quel était... l'objectif lorsque vous vous procuriez euh, de euh, cette base de données comme, comme Comme eux. Et nous, chaque année, on fait des accueils. chaque année lors des campagnes avant les des pré-campagnes euh, euh, électorales on entre dans les amphis on, va voir nos, camarades nos amis on va prendre récupérer leurs informations pour que le jour des élections qu'on puisse participer à leur vote c'est-à-dire au lieu qu'ils rentrent au niveau de la cliquer le lien toute cette procédure là on va enlever ça c'est-à-dire c'est à nous d'aller voir de d'aller euh, louer des cyber anticiper leur vote c'est-à-dire eux ils recevront que le code et ils vont nous envoyer le code comme ça ils vont voter donc les bases de données ça date depuis longtemps donc quelqu'un j'ai vu j'ai vu quelqu'un de, de son numéro de carte d'étudiant il, il s'est mentionné 2007 virgule je ne sais quoi mais c'est un il étudiant est à non il, il peut être toujours à l'université comme si il peut être euh, il peut il peut sortir de l'université comme les commissaires de police c'est-à-dire si vous si en 2012. moi je me rappelle qu'en 2007 j'étais à l'université. vous étiez à l'université mais si toutefois non attends j'ai hier hier j'ai il y a un de vos confrères journalistes qui m'avait appelé il m'a dit il est sorti de l'université depuis 2015 et pourtant la coalition e CECC lui avait appelé. je lui dit que oui, effectivement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est aujourd'hui membre de la coalition CECC Et il a, il a si bien dit que Erga Omnes était euh, C'est-à-dire, non, cette personne, ceux qui sont aptes à voter, ce pas à nous, coalition CECC, de définir. C'est-à-dire, au niveau de la plateforme, si vous euh, insérez les coordonnées et les bases de données de l'étudiant, si ça passe, si le campus l'envoie un message, c'est parce que cette personne-là est apte à voter. Mais ce n'est pas à nous pas, de définir, pas, qui va voter ou pas. C'est le campus qui va le définir. Et hormis cela, on ne va pas chaque année jeter nos bases de données. les listes qui sont là ce sont la liste éthique date depuis combien d'années. avant réviser il la révision de cette. les nous nous allons préparer une poursuite judiciaire. une poursuite judiciaire parce que parce que même moi même moi même moi même moi à la coalition COCC parce que même moi ils m'ont envoyé un code alors que j'ai déjà voté comment ils ont fait pour avoir mon nom mon prénom, ma date de naissance, mon numéro de téléphone, ma numéro de carte étudiante. Comment ils l'ont fait alors que moi, je ne les, les, ai pas donné ça je peux, vous, ah, vous montrer après le message. Oui. Il y a une fille, Maguette, du nom, du nom, du nom de Maguette. Je vais vous dire le nom, je veux dire le nom ici. Non, je veux dire le ici, qui m'a appelé pour me pour me demander pour me demander de voter de, de voter pour la coalition COCC c'est c'est scandaleux alors que la loi de sur la protection des données personnelles est là cette loi va s'appliquer sur eux et cette, on va pas les tomber parce que j'ai dit les enjeux sont énormes soit à qui la faute non attends attends euh, à qui la faute aujourd'hui si l'organisation incombe n'incombe pas à ces, étudiants Alors à qui la faute si les coalitions peuvent même avoir des documents qui sont censés euh, ne pas être à leur portée Bon, je pense que, vous savez, depuis quelques années, nous, nous participons à ces élections-là. il faut leur demander pourquoi ils ont été installés, ils, ils, ils, se, sont, ils se, au niveau des 10 et 15. Il faut leur demander ça après. Nous, nous avons toutes les informations. Il n'y a rien. il ne faut pas dire ça. vous savez, vous savez. S'il me demande ça, moi aussi je peux lui poser la question à savoir. Vous savez, nous sommes dans des élections. Nous, nous, nous, c'est-à-dire on cherchait des cyber partout. Partout où il y a des cyber. Mais vous même y des appartements. On, on loué, on a même loué des appartements. on, on, a a même loué des appartements, je le dis bien. On a même on a rien donné gratuitement. Mon frère, Et que ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas ça le débat. Le débat c'est quoi Le débat c'est ça, c'est ces de violence et, et qui que rien ne peut justifier qu'il faut y revenir. D'accord. Je rappelle, chers euh, donc la Faculté des sciences juridiques et euh, de la coalition gagnante. Nous recevons également Papa Abdoulaye Touré, étudiant de cette même faculté des sciences juridiques et membre, lui, de la coalition article 118 et 119 euh, du COCC. Aujourd'hui, euh, annuler ou les tendances parce qu'il n'y avait pas eu de résultat définitif. Et définitif. définitif. Non, mais des résultats définitifs. Non, une non. tendance. Prévisoire qui est une... Attends, attends. Dans le communiqué, on vous dit résultat provisoire annulé. Voilà. Regarde, ici, comme vous pouvez le constater. C'est provisoire C'est-à-dire, de 8h à 18h, les élections, c'est de 8h à 18h. Et à 18h, le, la plateforme publie les résultats pour dire celui qui a gagné ou pas. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord. avant les résultats définitifs euh, il y a les recours il y a les réclamations il y a tout et donc vous ne pouvez pas parler de résultats. voilà. non en fait ce que je veux dire par là c'est que les recours que vous venez d'énumérer c'est ce que je veux c'est, là où je voulais aller. c'est-à-dire il faut être il la galanterie syndicale c'est-à-dire il y a la plateforme il y a même nous même nous ça nous a étonné de voir au niveau de la de, de leur coalition. non mais de, attends mais comment on pouvait être au courant de ça. on a on a pu attendre après la publication de ces résultats raison pour laquelle beaucoup de nos membres pas pu jubiler parce qu'ils se sont dit que ces gens-là ont saboté notre victoire parce que ces 6384 que vous voyez là ce sont des personnes qui ont voté pour notre coalition et nul ne peut avoir 6000 voix au niveau de notre faculté sans pour autant remporter ces élections. Nous, nous le savons pertinemment, mais il fallait être galant après la proclamation de ces résultats provisoires. Être grand, vous, avez vos droits, mais vous savez vos droits, mais faites-le. Pourquoi vous n'avez pas usé euh, donc euh, compétente écrire un, une demande, saisir l'autorité compétente et introduire un recours. Mais lui, on dirait que mais ils sont, n'écoute pas. Depuis tantôt, j'ai dit, en cours d'élection, nous avons saisi par courrier. Et c'est ce courrier-là qui, euh, a, amené euh, à, à, à, ces personnes qui ont siégé au niveau de la commission électorale d'annuler et de juger que ces, euh, les élections, euh, il y avait beaucoup, il à travers la, la, plateforme. Mhm. Donc nous, Donc, on s'est fié. Non, non, non, c'est-à-dire nos votes ont été confisqués ont été ont par la coalition par la coalition COCC par la par la coalition COCC ah, c'est parce que c'est eux qui étaient au G15 avec des ingénieurs informatiques c'est eux qui étaient au g avec des non nous on les a on a des photos des, des, des gens entrés en, en, euh, au, au niveau du aller en sortir. Et ça, arriver à la justice, nous allons sortir tous nos preuves. Parce que nous allons, nous en justice. Hein. Il y, a des, il, a, il a, dossiers qui se préparent. la base de données de la faculté piratée. Tout ça, nous allons le signaler. Aujourd'hui, vous parlez donc euh, de saisir la justice. En attendant, le coude qui a été lésé a brandi deux plaintes. donc une plainte à l'endroit de ces fauteurs de troubles, mais également une autre plainte, parce qu'on doit, euh, on doit sortir de ce cadre pour parler d'autre chose. Euh, une autre plainte, donc, euh, pour le Conseil, pour l'Assemblée de l'Université. Aujourd'hui, que pensez-vous justement euh, de ces deux sanctions Vous pensez que euh, c'est bon pour, euh, donc, un peu corriger ces fauteurs de troubles Effectivement, mais juste une minute, vous me laissez un peu revenir. Tout à l'heure, tantôt, il a dit que c'est le courrier qu'ils ont envoyé au CSA qui est à l'origine de l'annulation. C'est faux. C'est faux. Mais comment ce courrier-là peut, être à l'origine, alors que même avant que le communiqué puisse, euh, l'administration puisse sortir ce communiqué, c'est-à-dire à la, à suite de la proclamation des élections, ils se sont, euh, ils se sont, au niveau du campus, saccager tout ce qui se trouvait euh, sur leur chemin. Ils ont tout saccagé, les restaurants, tout. Donc, ils, ont... mis la pression à notre doyen de faculté. Non, un véritable, un véritable, un Non. C'est eux qui ont menacé le doigt hier. Euh, eux, en brandissant des insultes, la coalition COCC. J'ai, j'ai vu leur message, j'ai vu leur message. Après l'annulation. Après l'annulation, ils ont, ils ont, ils ont, mis euh, le numéro du doyen dans leur groupe pour que chaque étudiant envoie des messages au doyen. Nous, j'ai vu ça. Nous avons dressé un message de contestation pour dire, pour rappeler à notre doyen qu'il, n'est, qu'il n'a pas les compétences de prendre une telle décision. non mais c'est le ministère c'est le rectorat c'est le campusène le droit le doyen ne gère pas le camp la plateforme donc il n'est pas habilité tu me tu me il n'a pas l'habilitation pour annuler une quelconque élection donc nous on avait dressé un message de de de de de, de contestation et on avait appelé à nos membres d'envoyer tous ce message au doyen c'est comme une pétition mais si vous croyez que ça c'était c'était des menaces mais vous vous vous avez saccagé la faculté. le doyen notre commune le communiqué n'avait même pas de cachet parce que tout simplement le doyen n'avait pas accès à la faculté il a tenu la réunion au niveau de INSEPT. INSEPT c'est là où il a il a tenu il a tenu une petite réunion pour annuler les élections. qu'il me quand quelle heure où on a saccagé le bureau du doyen. non non. La non c'est-à-dire non ça ça c'est des allégations fausses. Ah Quant je l'ai dit, lui, il confond le syndicalisme et l'activisme. Nous, nous, nous, moi, moi que vous parle, moi qui parle, j'avais le groupe à ma disposition. Les, les gens étaient avec moi. J'ai vu aucune personne saccager la fac ou le coude. C'est pour cela que nous, c'est pour ce, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne, et ce qui va étonner même le directeur du COUD qui dit que va porter plainte parce que nous avons toujours collaboré avec le directeur du COUD lui il le sait et nous le savons c'est pour cela que quand il dit il va porter plainte c'est pour identifier ces personnes occultes qui se sont profitées de cette manifestation pour le saboter nous on sait mais lui peut-être il ne sait pas il, n'a pas ces informations là voilà et Pape Abdoulaye aujourd'hui il y a je ne dirais pas lorsque l'Assemblée, entre autres entités de l'université, avait, euh, au cours d'une réunion, décidé de la suspension des amicales. C'est récent. Aujourd'hui, ces incidents viennent donner raison à ces, ce vœu formulé euh, donc par ces autorités universitaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça En fait, euh, sur le principe, je suis d'accord. C'est-à-dire sur le, Euh, sur euh, le pourquoi ils voulaient annuler les amicales. C'est ce genre de trucs-là. Violence à gauche, à droite, prendre des machettes, des gourdins, attaquer les gens, hein, violenter les gens. Le, juste, non, mais c'est du n'importe quoi ce qui se trouve à l'université. Et par la suite, tu pars au niveau du commissariat. Non, ce n'est pas récent, ça depuis longtemps. Il n'y a même pas trois mois, il y avait un étudiant mort. Nous, avons enregistré un mort. lors de ces des séries de violences qui opposaient des deux parties non donc nous avons enregistré un mort donc c'est récent l'autre jour aussi le lundi passé ce qu'ils ont fait ça n'honore pas l'image de l'étudiant avant tout je pense que mon frère euh, Pape Abdoulaye Touré doit respecter l'amicale en tant qu'institution parce que il y a il y a mais attendez attendez attendez je vais revenir je vais je je vais revenir sur les incidents parce que y a pas y a pas longtemps il y a pas il y a pas il y a pas si longtemps il a été emprisonné c'est cette même amicale qui s'est levée pour euh, le libérer donc nous demandons nous demandons plus de respect pour ces amicales là et encore une fois madame euh, Elisabeth je veux faire l'historique de ces amicales là ces amicales ne sont pas nées ex nihilo. C'est, c'est, c'est à travers un décret présidentiel que ces amicales ont vu le jour. Et, et donc, nous savons qu'ils occupent un euh, le décret vous savez vous et moi vous savez que quelle place occupe le décret présent euh, euh, le décret présidentiel sur le bloc constitutionnel donc c'est important il faut pas il faut pas se lever pour dire que nous allons annuler nous allons suspendre ou autre c'est un droit non non non je veux moi aussi c'est à moi de préciser il a précisé que cette thèse qui a été soulevée lors d'une réunion récente donne aujourd'hui euh, raison ou euh, ces incidents donnent raison à cette thèse. Mais cela ne donne pas, encore une fois, cela, cette thèse avancée ne donne même pas raison. Parce que lui, il me connaît, il m'a jamais vu prendre un gourdin non c'est-à-dire on va parler on va parler il y a beaucoup il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui prennent des gourdins des massettes et autres alors qu'ils ne sont pas même pas des étudiants c'est ce problème là qu'il faut gérer sont pas des amicales ces gens là euh, qui prennent des massettes n'appartiennent même pas à des amicales ça il, faut le dire moi je voulais <laughs> faire comprendre que Les amicales, euh, on ne les voit jamais se verser dans ces violences. bien. C'est ce que vous et, voulez dire. Et, voilà. Et récemment, récemment l'incident qui avait amené euh, aux autorités de, euh, de, de suspendre, vouloir. de suspendre euh, les amicales, la confrontation se posait entre deux mouvements. Et ces, ces mouvements ne sont pas des amicales d'étudiants. C'était pas des, pas, de faculté ou autre. Ça, il faut le dire. Donc il ne faut pas mélanger les choses pour dire que... Où s'arrête, où s'arrête la prérogative des amicales savez que les amicales sont là euh, pour euh, protéger les intérêts matériels et moraux des étudiants. Et vous croyez que C'est pour, cela que, plusieurs fois, plusieurs fois nous, nous nous sommes dressés contre nos frères étudiants pour leur dire que ces, ces édifices-là nous appartiennent, il faut pas les saccager. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce pas le couple qui, qui, C'est l'impôt de nos parents. Nous, connaissons sciemment ce que nous disons. C'est pour cela que quand, quand, quand, quand les gens de l'extérieur pensent que les, c est, c ce sont les, responsables d'étudiants qui incitent au saccage, ça je dis que voilà, ils ont fait de, de mauvais Voilà, c'est ça. Pour euh, vous, n'allez cautionner que l'on suspende les amicales. Mais aujourd'hui, que ces résultats sont annulés et qu'il y a euh, des tractations, entre autres, ne craignez-vous pas qu'on aille vers bah, Moi, je pense que, en tout cas, ce que je, je milite pour que les responsabilités soient citées. C'est ça qui est important, parce qu'une enquête doit être... une enquête doit, euh, doit être ouverte au niveau de la faculté pour situer les responsabilités qui a percé la plateforme du campusel, censée assurer les inscriptions, les orientations des nouveaux bacheliers. Donc, si ces personnes-là sont parvenues à percer la plateforme, donc cela montre encore une fois, ils peuvent orienter qui, qui ils veulent, ils peuvent donner le baccalauréat qui ils veulent, euh, euh, euh donner la bourse qui ils veulent. Euh, donner des notes au niveau de la faculté qui ils veulent. C'est pour cela que nous demandons une enquête sérieuse et très rigoureuse qui va sanctionner les responsables, les responsables de cet acte. Voilà. Et aujourd'hui, euh, Papa Abdoulaye, aujourd'hui, donc vous admettez que euh, moi, Elisabeth, je peux ne pas faire euh, partie plutôt quelconque organisation amicale et me lever, me battre, créer la zizanie, la semer euh, au sein de l'université sans que l'engagement de l'amicale y soit Non, en fait, nous sommes tous des camarades et on se connaît. si vous prenez votre micro, vous, vous allez au niveau du campus social, vous verrez que les amicales, c'est-à-dire, sont au cœur de ces séries de violences et nous savons les listes les plus violentes de l'université, osons le dire. Nous le savons, nous le savons tous, ces gens-là qui sèment la terreur sous le prétexte que les forces de l'ordre n'ont pas pu accès au campus social et ils font du n'importe quoi, on les connaît. Tout à l'heure, il a dit que euh, l'incident qui, avait poussé les autorités, les, ah, le, qui avait poussé les autorités à suspendre les amicales. À vouloir suspendre les amicales, euh, c'est-à-dire ça ne concernait pas les amicales. Mais avant, avant, euh, avant cet incident-là, mais il y avait l'autre incident qui, au niveau de la faculté des, des sciences et techniques, c'est-à-dire au niveau de l'accueil des nouveaux bacheliers, des étudiants et des syndicalistes se sont mais, s'entretués jusqu'à ce que quelqu'un même était se trouvait dans une situation de coma et moi-même des journalistes m'avaient appelé pour me dire que on a eu l'information selon laquelle que cette, ce jeune homme-là qui était dans une situation de coma est mort donc mais heureusement pour lui pour lui mais il a des séquelles toujours c'est-à-dire le, le syndicalisme pour lutter contre la violence la violence au sein du campus social comme pédagogique il faut qu'on revoie la loi sur les franchises universitaires Tant que nous laissons les séries de violences, tant que nous laissons cette impunité-là, de, de, ces séries de violences, ces gens-là, ces petits gens, parfois vous voyez des, petits, des petites personnes, des personnes qui ne pèsent même pas 60 kilos, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui, qui dictent leur loi et qui insultent des gens qui peuvent leur dévorer. Mais pourquoi ça Parce qu'ils sont, euh, c'est-à-dire qu'ils se réfugient derrière un groupe, derrière une liste. il faut que cela cesse. Moi, je n'encourage pas, nous en tout cas, on n'encourage pas la violence. Mais solution... nous sommes pour, pour, la solution, nous sommes pour que c'est la loi sur les franchises universelles soit revisitée pour qu'enfin les auteurs de ces actes de vandalisme et de violence puissent être euh, arrêtés et traduits, traduits devant la justice. Et qu'est-ce que vous préconisez comme solution, Bakary Bon, je pense qu'il est important, comme je l'ai dit dans l'entame de mes propos, l'université est un temple du savoir. Uh-huh. un temple du savoir et il faut, il faut privilégier, voilà, il faut, il faut privilégier, privilégier les débats d'idées, voilà et aussi faut accepter la contradiction au sein que en tant qu'intellectuel euh, il faut se contredire dans l'université l'un de mes professeurs avait l'habitude de dire que à l'université personne n'a la vérité il le cas excusez-moi ça a le cas que on a eu à interroger qui est, qui est, également dans un parti politique qui est très renommé, qui était également un syndicat, euh, je veux dire, euh, dans les organisations d'amicales, et qui nous dit que euh, il y a donc longtemps, eux, ils ont privilégié ce débat d'idées à la place des muscles. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire revenir ce format Pourtant, pourtant moi-même, moi-même que vous parle, je me suis engagé dans un mouvement qu'on appelle les ambassadeurs de la paix. Juste pour dire que nous, notre liste n'est pas, n'est pas, n'est pas une liste si belliqueuse. J'ai donné ma voix à travers ce mouvement pour lui dire que moi, Bakary Bassar, je m'engage pour la paix au sein de l'université. Parce que l'université n'est ne, ne, ne, pas, pas un endroit de règne. comme euh, comme comme les gens ont l'habitude de le de le dire et pour ça je pense que les autorités doivent prendre aussi leurs responsabilités s'asseoir sur une table ronde, discuter avec les amicales pour trouver les solutions. Et j'insiste, ces solutions-là, c'est-à-dire ne doivent pas, ne doivent pas se faire de manière solitaire, où l'autorité va s'asseoir, va dans son bureau, prendre des décisions pour l'appliquer. Et lorsqu'ils euh, décideront de prendre des décisions pour des, chartes ou des engagements, il faut appeler les, les amicales, les représentants d'étudiants, discuter avec eux, prendre des décisions idoine euh, idoine pour euh, euh, pour pour pour, l'université donc je sais que quand des personnes se rencontrent pour trouver pour discuter des solutions se trouveront voilà euh, juste en une minute aujourd'hui euh, les résultats sont annulés euh, vous ont-ils donné d'autres explications pour vous dire qu'il y aura d'autres élections ou pour le moment vous êtes dans l'attente de l'administration Bon, comme vous avez vu, ils ont publié le communiqué, ils ont dit les résultats les résultats provisoires sont annulés, d'autres élections seront organisées. Quand la date, bon, c'est pas encore la date. Donc nous, nous allons les écouter pour voir qu'est-ce que ça va donner. Et vous savez, euh, nous, c'est-à-dire la majeure partie, et nous, notre liste en tout cas, tous les membres de notre liste sont des étudiants régulièrement inscrits. Je ne sais pas si vous me... Peut-être vous, ne pouvez pas me comprendre, mais les étudiants qui vont, qui vont nous écouter vont me comprendre. C'est-à-dire nous sommes des étudiants régulièrement inscrits depuis le début de l'année jusqu'au moment où je vous parle. On se concentre sur des élections, sur des campagnes, sur des bases de données, sur des recensements, entre autres. On a d'autres à faire. Est-ce que vous savez donc et que nous aussi également nous, nous sommes des étudiants régulièrement inscrits il y a des travaux dirigés qui nous attendent y a des examens qui nous attendent aussi également donc on ne peut pas passer toute l'année à des élections et celui qui a piraté ce, ce, ce, la plateforme celui qui voulait frauder euh, la plateforme et si on partait à d'autres échéances aussi il va refaire la même chose si toutefois qu'il sait que euh, il va perdre les élections on ne cautionne pas on ne cautionne pas donc on ne cautionne pas ça sur 200 élections nous allons les gagner parce que les étudiants veulent sanctionner la violence la peine on n'a on, on n'a pas d'aller aux élections mais comme je l'ai dit tantôt nous sommes étudiants régulièrement inscrits on va pas passer toute l'année universitaire à, à des campagnes des élections il faut que je rappelle quatre ans quatre ans d'affilée c'est nous qui à la tête de l'amicale eux pour avoir de la force, ils nous ont rejoints dans notre coalition. C'est cette année qu'ils sont sortis. Et comment aujourd'hui ils, ils, disent que, ils, ils, peuvent se permettre ici dire que nous sommes des, euh, nous sommes violents, violents, C'est faux. C'est faux. ils savent que. ils savent que. ils savent que. ils savent qu'ils ne pèsent pas. s'il dit que nous avons des travaux des euh, dirigés à faire ou autre nous tous nous sommes des étudiants mais voilà mais oui nous nous nous aussi nous aussi nous aussi on s'est inscrit régulièrement à la fac je pense que non non non je pense que je pense que je pense que lui il est en train de, de faire un, un, un faux piste. Moi je suis inscrit régulièrement et mes camarades avec qui je travaille sur le terrain à la fac ils se sont l'ont également fait quoi donc il est important de le signaler donc être là avec des camarades dire que celui est, est, inscrit celui n'est pas inscrit moi je n'entre pas dans là. Ce qui m'intéresse c'est que eux ils de mauvaise foi c'est aujourd'hui qu'ils Quand il s'agissait euh, de rejoindre une coalition pour s'agrandir, ils nous ont rejoints dans D'accord. Euh, euh, nous sommes au terme de cette émission. C'est très rapide, Et moi-même, pour vous dire vrai, c'est la première fois que j'anime une émission et que vraiment, je me dis que le temps est un peu limité. Mais il y aura une prochaine fois parce qu'il y aura une suite à, à cette euh, histoire d'élection euh, d'amicale à la faculté des sciences juridiques et je promets d'y revenir, quitte à revenir à l'université, euh, à la faculté de droit et avoir beaucoup plus euh, donc d'informations sur des gens qui ne sont pas intéressés. Pourquoi pas un trio avoir un trio euh, sur donc euh, ce plateau. Mais en tout cas, merci, merci, merci. a été un plaisir euh, euh, de vous avoir, vous deux, dans cette émission L'encre la plume. Papa Abdoulaye Touré, vous d'abord. Oui, tout d'abord, je tenais à dire aux étudiants que nous n'allons plus accepter d'aller aux élections, nous avons gagné et que nous sommes dans des procédures judiciaires. <laughs> non, non, n'a pas peur d'élection, mais, Nous sommes tenus. de faire respecter le choix des étudiants. Ces 6384 étudiants qui ont voté pour nous, nous sommes tenus. Non, nous sommes tenus de le respecter. nous, allons, nous allons attaquer la décision de l'administration, c'est-à-dire du doyen, au niveau de la chambre administrative de la, de la Cour suprême. Nous allons déposer des plaintes parce qu'il y avait des de, des membres de notre coalition est violenté par les membres de la Renaissance, je le dis, haut et fort, nous avons fait appel à un huissier de justice, il a fait le constat, donc c'est-à-dire euh, les étapes suivantes, nous le connaissons tous. Déjà, il y, a le, il y a le professeur Badji du Crédit là qui va porter plainte contre Nous allons déposer, nous aussi, des plaintes contre eux le COUD va déposer des plaintes contre eux et nous nous, nous, nous allons attaquer de procédure donc après les têtes vont tomber nous allons savoir qui est qui et qui sont les auteurs de ces actes de vandalisme et de violence d'informations sur la suite Donc, de cet oh. événement. Euh, euh Bakary, Bakary, nous allons terminer cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'Ancre Lab. Ok, bon, merci, hein, merci. Mais lui, il a dit qu'il <laughs> n'auront pas. il a dit qu'ils n'iront pas en élection, mais ils, n'iront pas en élection, mais c'est scandaleux quand même. Quand ah. on a dit qu'ils ne vont pas en élection. qu'un étudiant dit qu'ils ne font pas en élection, un étudiant de droit. Quand, quand eh, le disait au Sénégal. Non, mais donc, <laughs> merci, merci, euh, merci, merci, merci Elisabeth. Euh, merci Elisabeth pour l'invitation et je salue de passage tous les, tout, tous les membres de la liste Renaissance et tous les étudiants de la faculté de droit. Voilà, je leur dis que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous allons faire tout pour... Euh, euh, pour protéger les intérêts matériels et moraux des étudiants. Le syndicalisme dont nous faisons est un sacerdoce. Voilà, ok, merci. cas, c'est sur ces mots que pour nous de vous accueillir, vous, Bakari Bass Saro, étudiant à la Faculté des sciences euh, juridiques et politiques, de la coalition gagnante, et également Papa Abdoulaye Touré, étudiant de la Faculté des sciences juridiques et politiques, membre de la coalition article 118 au, du COCC. Euh, donc, euh, ça a été Merci. Encore une fois, merci. Et à vous, euh, chers auditeurs, on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et euh, cette émission, vous pourrez la réécouter de 19h à